bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimun hakiim allahumma allimnaa maa yanfacunaa wanfacanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bu mag bi di Mouhamed Diawo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu dellu sant yàlla buur bi ñu xéewalal xéewal ya nekk fa moom duñu xaaj duñu jeex xanaa rekk bokk na ci xéewal yooyu xéewalu nelaw ba doomu aadama yi doon jëfandikoo waxtu si néew ci ginaaw waaye mu doon xéewal boo xamante ne bu duwutoon ci moom la bàyyee moom yàlla buur bi jàlla wa ala amul kenn amul lenn amul dara ba ñu war a mën a baaxee xéewal woowu moo tax mu duñu wax ci alquran wa ja'alna nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal nelaw bi ngeen doon nelaw wala maa leen may nelaw ba ngeen di nelaw mu doon xéewal ba ma leen yenkeewal mu doon xéewal boo xamante ne man yàlla maa leen ko offrir mu doon xéewal boo xamante ne man buur yàlla maa ko jagleel maa leen ko baaxe subhaanahu wa taala kon nga déggee ci ne ndekkite xéewal ba naan nelaw yàllaa ko baaxee jaamam bi yàllaa ko yenkewal jaamam bi ngir mu di ko jëfandikoo subhaanahu wa taala kon xéewal boobu di nelaw ka yàlla doyloo ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi moo ñu jàngal ci njàngalem yu matale yi nee na képp ku jëfandikoo xéewal wu boo bëggee boo namee ñu bindal la ko tiyaaba walla nga fàggu ci yiw del ñaan ñaan bi nga xamante ne noonu nga war a delloo yàlla njukkal nga sant ko ci xéewal bu mu la xéewalal moo tax mu ne adkaaru istiqaaz min an nawm lii di baat la boo xamante ne ki yeewu ci nelaw mënees nga kaa tudd jamono bala la yàlla delloowee sa ruux mooy ban baat mooy alhamdulillahi alladi mboolem xëytu cant yu kawe ñeel lañu yàlla alladi axyaana ndax mooy buur ba ma bind may ma ma nelaw ginnaaw si mu delloo ma sama ruux baadama amatana keroog bi ma suubu ci dee bu ndaw te mooy nelaw buur yàlla daldi ma delloo sama ruux waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yalla lay dellu keroog bu ma noppee ci dundu àddina si kon yow jullit ba ñaan-ñaan bi feddali nga ne boo fi jógee ko doo dellu ci kenn doo dellu fenn dellukaay bu mag bi du ci kenn du fenn fu dut fa yàlla ba tax na yonent bi ne képp ku ci nelaw na ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne bi léegi ñu ngi fàttalanteeg mbokku député ya nga xamante ne ñooy taataan baatu askan wi ngir ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi ñu di fàttali ne rek lenn ci député yi nga xamante ne ñoom ñooy dagan baatu askan bi ngir ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi fel du doy addiinu nasiha diine bi de yonent bi ne diine yi laaxante biir la dañu wara a conseil kenn ku nekk ngay conseil sa morom di conseil sa mbokk di ko ñaanal ña nekk ci kaw nañu déglu ña leen sànnil xob ña taxa falu tamit ña fal bu len leen fàtte nang leen leen taxawal seeni mébét ak seeni bëgg-bëgg ak seeni besoin loolu mooy wa awful ahda ida ahadtum na ngeen matale kolare bu ngeen ko fase bu ngeen ñu joxe majorité ci assemblée nationale dinañ def lii dinañ def laa askan bi déglu nañu leen askan bi wóolu nañu leen askan bi jël na seeni xob ñu tànn leen ngeen am la ngeen bëgg ci assamble nationale ngal la waay pencum ndaw réew mu boobu ngeen nekkee na ngeen gëstu ñi leen fa tax a toog privilège yay jóge ko ci biti privilège yañ leen di jox ci nguur gi bu mu tax ngeen fàtte askan ba leen fal kon su boobaa nag hmm, la yonent bi wax màndargaay naafiq de ñett la kon su boobaa benn badge si badge naafiq yi day daldi di gàll loos képp ku wuuteeg langa nga dexalanteeg ña tax a jëm ci pincum ndaw réew moo ba tax na buur yàlla subhaanahu wa taala ma yenn yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yonent bi ñëw ne ñu addiinu nasiha diine bi kat diine yi laayante biir la addiinu nasiha diine bi de diine yi laayante biir la kenn ku nekk dafa wala laaye biir jëmale ko ci moromam ba tax na mu ne ñu addiinu nasiha lillahi wa li rasulihi wa kitaabihi wa aimmatil muslimina wa ammatihim nee na diine bi de diine laahente biir la laahente biir bi nag buñ koy def nañu tibbee conseil ba jóge ko ci njàngale alquran waaye bu ñuy dem ba laahente biir nañu jël conseil ba jóge ko ci njàngale yenentu bi bu ñu demee bay biir tamit nañu jël conseil bi nga xamante dinañ ko jëmale ci ñu ñu jiite waaye ña jiite tamit nañu conseil nañu jiite kon nga gis ne kenn ku nekk day laayante biir moromam ña nekk ci kaw nañu am yërmande jëmale ko ñañu jiite ñu ñu jiite tamit ñun mi di population bi nañu am yërmande jëmale ko ci ñu ñu jiite waaye ñañu fal ci pencum ndaw réew mi tamit nañu toog fal leen fal ngir ñu yéwéna la nekkenu askan bi ku bëgg a jàng na jàng ku feebar bëgg a faju na yomb ci moom ki xiif bëgg jëfandikoo ñam na yomb ci moom kay dem tukki na muy génnee dem fàggu ji na yomb ci moom kay dugg ci réew mi tamit nañ ko bàyyi xel saytu ko su ko defee taxawaay bi mu doon taxawaay bu mucc ayib moo ne lañ leen wax ni réew ña koy appliquer ay nit la ñu de duñu jinn duñu ay malaaka waaye dafa fekk ne rekk dañoo tënk seen bopp ci doxalin bi nga xamante ne ñëpp mànkoo ne doxalin bi mooy doxalin bu war suñu réew wara mucc ayib kon ñu buñ ko installé wa te mën nañ kaa installé te dinañ ko installé incha allah su ko defee ba tax na képp ku ñu fal na nga xam la tax ñu fal la Yuusuf wax ne fal leen ma ma doon ministère de finance ndax ki ko mën a wattu laa waaye ki ko xam la tamit ngir jëfandikukaay ba ma koy jëfandikoo ki ko xam la ba tax na ñañu fal ci pincum ndaw réew mi ñañu fal ci poste bi nga xamante ne mooy poste bu fees dell ak ay privilège yàlla ne hum avertissement baa ngi nii ca suratu Rum aya sept mu ne ñu ya ya'lamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an al axirati hum gaafiluun suratu ruum qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha taala yabgidu kulla caalimin biddunya jaahilun bil axirati saxiixul jaami mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di tëkku di jox avertissement ña nga xamante ne ñoom programme àddina dañ koo mémoriser dañ ko xam ba jeexal ko ba peeg ko sax waaye nag ah alaxira moom xamuñu ci dara géemuñu ci xam dara bugguñu koo xam sax faf dañ kaa weddi yonent bi nee na ñu mel nii nag yàlla da leen jéppi yàlla mere moo tax yonent bi ne naka sama borom buur bu kawe bi buur bu tedd bi mere na képp koo xamante ne doxalina àddina daal da koo xam ba ko waaye alaaxira moom da koo réeree mbir moom xamu ci dara bu gisee ñuy wax mbiru alaaxira loolu da koy déranger day xool jëmm jooju moo ne bët bu mu koy xoolee xam ngeen ko moom da koy xoolee est-ce que la ngay wax dem nga foofu ba ñëw moo ne kooku tamit bu xoolee ki peeg ci xam-xama àddina lang may xeebe ngay tiitaroo la nga nekkee est-ce que bi nga doon juddu judduwaale nga xam-xam ba ngay wax ni ci xam-xamu àddina kooku tamit bu xoolee keneen ki bët bi kon kan mooy gën a doon ko xeebu kuy tiitaroo ci xam-xamu àddinam kooku mooy doon ko xeebu te ñooñu ñoo fi nekk di tànqal nit ñi article bu ne xam nañ ko article bu ne xam nañ ko mémoriser nañ ko waaye tariloo leen rekk juróom-ñaari aaya ci faatiha di dar sa gémmiñ article bu ne waaw ah, États-Unis seen article nii niya tel numéro tel lépp mën nañoo toog mémoriser nañ ko seen bopp boo demee France seen loi tel article tel lépp mémoriser nañ ko suñu réew mi loi tel article tel nii niya tel lépp mémoriser nañ ko waaw ah, ñoom daal mbiru àddina bi liñ ci xam kenn mënul la kaa wax waaye seen mbiru àllaaxira xamuñu ci dara dara dara dara kuy jëflanteek ñoo mbiru àllaaxira sax dañ lay xoolaat dañ la daan moo mbaa du yow waaw dañ lay xoolaat daal but boo xamante ne daal la ci yàlla xam nañu ñu doy loolu moo tax buur yàlla ne yaalamuuna xam nañu yaalamuuna xam nañu zaahiran la feeñ nal xayaati duniya ci dundu àddina bi ñuy dund lépp loo laaj xam nañ ko lépp loo won xam nañ ko lépp loo xamante nangu nangu ngaa waxtaan ak ñoom ci loole mémoriser nañ ko wottu nañ ko peek nañ ko sax faf waaw lañu ñu ci article yeeg loi xam nañ ko lañu bind kañ lañ ko bind ku ko bind xam nañ ko commerce bi barelu pétrole bi nu mu yéegee nu mu wàccee kañ la war kañ la war a wàcc xam nañ ko lépp lu àddina di doxee xam nañ ko waaw moo tax yàlla ne yaalamuuna xam nañ de zaahiran la feeñ ci pénc bi la xayaati duniya ci dundu àddina bi la ñëwagul sax ñoom buñ ci defee analyse dina tombeek bu ñëwee na mel bu ñëwee namuy mel day tombeek ak la ñu wax na xam nañ zaahiran la feeñ minal xayaati dunia ci dund àddina bi lépp lañu xam waaw walla lu bëri xam nañ ko si waaw yàlla suñu boroom nangul na ñooñu sax seen xam-xam ci xarañte fi àddina ñàngul du ay te war na mën a ne waaye la tax yàlla jippi leen deuxième bi lañu ñu sàgganee lan wa hum anil axirati fekk ñoom kat lépp lu aju ci mbiru alaxira hum xaafiluun dañ ko sàggane du question ne xamuñu ko de xam nga ñàkk kaa xam peut-être dangaa amul ku la ko wax peut-être ñàkk kaa xam amul ku la koy won peut-être ñàkk kaa xam dangaa amul kuy waxtaan ak yow ci mbilu àllaaxira loolu mën na laa tax ñàkk xam àllaaxira amaana ci loolu yàlla du la ci jàppee bàkkaar waaye nag aaya bi fu mu jeexee mooy hum xaafiluun gis nga wa hum anil axirati fekka ne ñoom kat ci mbilu alaxira hum ñoom tigi xaafiluun dañ koo sàggane dañ koy fàtte-fàttelu bëgguñu koo xam te moo ne ku leen ko bëgg xamal duñ la déglu moo ne ku lañ ko bëgg a xamal duñ la faale fuñ koy jàngee xam nañ ko duñ fa dem fuñ koy waxtaanee xam nañ ko duñ fa dem hatta waxtaan ba ñuy waxtaanee nii ak yéen ñoom buñ ko déggee dañuy zappe dañuy zappe bu dee télé lañu yore seeni kër yore seeni commande ñuy zappe di zappe di zappe bu ñu dalee ci kenn ku nan qaala allahu yàlla nee na wa qaala rasul yonent bi nee na dañuy zappe parce que dañoo jàpp ne ñoom daal waruñu déglu lii ndax kii wax lii demul alaaxira ba mu ñëw mu di ñu nettali lay xew alaaxira moo ne moom jëmm jooju di xelaatee nii jëmm jooju di doxalee nii moo ne <laughs> docteur bi koy faj gannaaw bi mu feebaree docteur boobu xottiwul biiram dugalut loxoom ci biiram te moo ne da koy wax la nekk ci biiram da koy gëm moo ne docteur boobu bu jëlee ndox tuukur ndox kese kese kese kese kese jox ko ne ko demal naan lii pendant sept jours dinga nga wir te tegul ko ci dara lu dul kàddu ba mu dégg ci docteur bi moo da koy gëm waaw docteur boobu di nit ni moom mu jox ko garab ba koy faj mu gëm ko mu tegtal ko feebar ba nekk ci biiram te moom docteur boobu duggut ci biiram duggulut loxoom ci biiram te xamut nu biiram composé wu mu tegtal ko ay tegtal rekk mu daldi di gëm docteur boobu ngir lam ko tegtal ci biiram moo ne yàlla ki xamal xam-xamu àllaaxira kooku tamit bu lay tegtal xew-xewu àllaaxira nga ne kooku dafa tardé yaa tardé yow mi yaa tardé ndax docteur ba la nar faj kooku bu la waxee da nga koy gëm te lu mu lay wax xamu ci dara gisu ko demu fa dëgalu fa loxoom bu tam mënut a sa biir bi sa biir bi nu mu composé wu te moo ne am na lum la tegtal ci sa biir ah te gëm nga loolu kon doomu aadama xel ba ko yàlla jox léegi-léegi da koy foowee te loolu ëpp naa def moo tax yàlla ne jëmm yooyu daal yaalamuuna xam nañu daahiran la feeñ min al xayaati dunia ci dundu àddina bi wahum ñoom kat anil axira ci mbiru alaxira kat hum xaafiluun ñoom ñuy ñu sàggane mbiru alaxira kon yow député ba ñu fal ñañu fal ñala fal dama ne député bu ñu fal mu war a toogal askan bi ci ndaw pincum réew mi ñala fal xamal li tax ñu fal la nanga leen taxawee ci mbiru àddina ndax moo tax ñu fal la waaye yow député bi nanga suuraale yàlla ëllëg bés pénc ca la tax ñala fal la nanga leen taxaw seeni àq na taxaw seeni àq nga taxaw leen la tax ñu yónni la ndax yaay seen surga yaa leen ne bu ngeen ma defee lii bu ngeen ma falee jox ma majorité nii laa lay taxawee nii laa leen di taxawee ñoom seeni doom duñu jàng seeni doom duñu jàng fu baax ñoom seeni hôpital baaxul ku feebar doo mun a faju moo ne pourtant société boobu ñoo la fal yow ngay campagne jamonoy campagne dugg nga fu neex wax nga lu neex promesse nga lu ne waaw ah, defe nga ne yaa leen gën a muus xam-xamu àddina bala yàlla jox te nga peeg ko nga jël loolu teg ko ci pinc bi bi nga convaincre nit ñi waaye sa digganteeg sa borom faalewuloo loolu sa digganteeg ñalafal faalewuloo loolu mbaadu boo mbaadu doo bokk ci ñi nga xamante ne moom la aaya bi de wax wa hum anil axirati hum gaafiluun ñoom ñooy jumma yoo xamante ne dañoo sàggane xam-xamu alaaxira xew-xewu alaaxira xamuñu ci dara xanaa yàlla dégguloo fum lay waxee ne wa awful ahdi iza ahadtum nangeen ngeen matale kóllëre yi bu ngeen dëxalanteeg nit ñi kóllëre ba nga xamante ne da ko dëxalanteeg na ngeen ko seq yaa ne fan leen ma bu ngeen ma falee dinaa def lii dinaa def laa dinaa mel fii nii fii dina mel nii fii dina mel naa ñu fal la defoo loolu matalewuloo bi xanaa xamuloo yalla dina la ko laaj bés pénc kon ndegem yaa ngi góom bés pénc wa hum bil hum yuqinuun ña di wax ci suratul baqara ñoom daal bés pinc gëm nañ ni dinañu taxaw ci kanamu seen borom yowma yaquumu nnaasu li rabbil aalamin keroog la doomu aadama yi mboolem seen di taxaw ci kanamu borom mbindaa fooni di allahu jalla wa ala mu atte leen képp kuy xel bés bii képp kuy bàyyi xel taxawaay bi ni mel kon ña nga séqal kóllëre ba tax ñu fal la nga nekk fa nga nekk yoole fa privilège ya nga fa yor doo fàtte sa diggante ak sa boroom waaye doo fàtte sa diggante ak askan bala tax a fal ba tax na lu leen di lor doo ko voté doo ko signé doo bokk ci ñu koy promouvoir ba tax na lépp lu lay di njariñ loolu ngay vote ci loolu ngay taxaw ci loolu ngay nangoo ñoddi di leen ko servir moo ne anaa dégguloo yàlla mu di la wax ne wallahu laa yudiu ajral muhsinin yàlla du yiixi peyoru way rafetal ñi moo tax yonent bi salaa sallam ne képp ku xam xam-xamu àddina nga dumooyu xam-xamu alaxira wala nga di ko géem a fàtte-fàttelu nee na inna allaha yàlla de taala buur bu kawe bi yubghidu mere na kullu aalimin bi duniya képp ku xam xam-xamu àddina jaahilin bil axirati waaye na mbiru alaxira alquran balay wax na àddina di doxee ak na alaxira di nekk faalewuloo alquran woowu mbaadu boo doo bokk ci ñeen yàlla mere mbaadu doo bokk ci ñi yenentu bi ne yàlla mere na leen mbaadu doo bokk ci ñi yenentu bi ne yàlla mere na leen parce que dañoo xam xam-xamu àddina waaye xam-xamu alaxira xamuñu ci dara bëgguñu ci xam dara ba dara booloo jeex moo tax bu dee danga bañ a bokk ci ña yenentu bi ne ñooñu ñooy ña nga xamante ne dañoo xam xam-xamu àddina réeree mbiru àllaaxira te yàlla rëbb leen kon kaay ñu waxtaan ak yow ñu won la xam-xamu àddina warees nga kaa xam waaye bul fàtte la nga xamante ne mooy xam-xamu alaaxira ndax moo lay tax am ñaari peyoor nga am yiw fii ci àddina bés pénc yàlla gërëm la moo tax mu ne la wabtaxi fii ma aataaka allahu daaral axira na nga ngoy nga jëfandikoo ci li la yàlla jagleel kiiru alaxira na ko jëfee mooy julli yeeg jaamu yàlla yi xëytu ibaadaat waaye nag mu ne la wala tansa nasibaka min ad-dunya sa cër ci àddina bu ko fàtte de na doxal sa dundu àddina bi mu neex waaw waaye tamit mu teg si ne wa ahsin kama ahsanallahu ilayk na rafetal comme na buur yàlla rafetalee ci sa jëmm ci waaw su ko defee loolu mooy la nga xamante ne moom lañuy ñuy dénk suñu mbokk député yañu fal ci assemblée nationale muy pencum ndaw réew mi ñu gànnaa yow loolu tamit ndax diine ba ñu bokk diine laayante biir la kon loolu mooy lenn ci lañ leen di diggal yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañ koy tànn ñu jëfe ko waaye dañuy jëfe tamit la si gën a rafet yàlla ñu yàlla boole ci minal alladina qaalu sami'na wa ataana yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ni dañu naan dégg nañu te dinañu topp lañu ñu dégg ndax diine bi comme ni ko yonent bi waxee ak diinu nasiha diine bi diine yi biir kenn ku nekk war ngaa laahee biir sa morom kenn ku nekk war ngaa conseil sa morom su ko defee ñu ñaan yàlla suñu boroom mu mbi ñu dégg ak topp ñu di ko ñaan mu bañ ñoo boole si ñi nga xamante ne dañ ne qaalu sami'na wa asayna wala sami'na wa hum la yasma'un yàlla ñu yàlla bañ a boole ci ñi nga xamante ne dañu naan dégg nañu fekk dégguñu waaye yal nañu yàlla bañ a boole ci ñi nga xamante ne dañ ne dégg nañu waaye dañoo lànk duñu topp lu ñu dégg kon ñun lañu am pour ñaan ko yàlla jacalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana yan nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy topp la ca gën a rafet waaye dañuy jëfee la ci gën a jekk amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bam leen di amal ci waxtu wi lii lañ leen andil tey ngir ñu soññ wante kook mbokk ya nga xamante ne askan bi ñoom lañu ñu wóolu ñu yónni leen ci pencum ndaw réew mi yal na leen yàlla tàggatal seen liggéey bañ fay liggéey yal na leen ko yàlla yombalal waaye taxawaay bañ fay taxawee ngir soxlay askan bi yal na ko yàlla woyofal yal na ko yàlla jàppandalal yal na yàlla tàggat seeni xol ak seeni xel ak seeni cër yi ñu war a mën a taxawee taxawaayu soxlaayu askan bi lépp loo xamante ne war nañ kaa vote ci béréb boobu mu doon njëriñu askan bi yan leen ko yàlla yombalal yàlla bu yàlla jafeel dara ci seeni taxawaay ba ñuy taxawee ci assemblée nationale mooy pencum ndaw réew mi ngir jekkal taxawaayu askan bi amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee bi ñuy ñaan bur yàlla tabaraka mu may ñu dégg ak topp allahumma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulaata umurina allahumma ihfad min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulata umurina amin ya rabbal alamin baarakallahu lii wa lakum fi lqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha lii wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru arrahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu